seydina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim <clears throat> mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak fu ñu mën a nekk ñi ngi fii ci Tuubaa tey ci wetu cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam li tariqa al muridiya xafizahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer yii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne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 wa ila jamii al muslimina amatan eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwén déwén ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin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 di leen seereel sunu cant bu baax a baax sant gu sant sunu boroom ci boole gi nu booleeg sëriñ bi sant nag sant mboolem mbokki sant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 fas yéene di taalibe nag nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneent lu baax. di yéeneent lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ñu ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci sunu diggante. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax.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 àggale kàddu yi nga xam ne sëriñ bi joxewoon na ko ndigal ngir ñu mottali ko ci biir wax ji ndax kàddoom yoo matali na sëkk làmboo na lépp lépp tàbbi na ci biir kon dañuy jéggalu yëkkati kàddu yi ci kanamam di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te doole ko kattan ak wér li mu bëgg a liggéey Sëriñ lépp mottali ko ndax moom moo sëñ bi daal rek.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 liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarab kon li doon wuti nag mooy lii ko suñu borom defal tey muy ilay qaadallahu ma lam yakuni wala yakun abadan li mumkini at mu jot tam suñu borom tegaat ko natt yu gën a yam ko daan teg diiru muy nekk Gabon ba jóge fa ba dellu si Sénégal ba dem gànnaar ba jóge fa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 te daa daari salaam moo inde tuubaaya bi jismin wa qilaam kon loolu wane woon na ne fii koy defee nawaytu shukruka fii zal yowm ya samadi qabla rai wa chiini am fu mu wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daaratil minan yooyu yëpp day firndeel rek ne sëriñ bi fii la ko yéene woon defee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 te doxee ko noonee mu ko bëgg woon wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali